mbokk yi information bi nga xamante ne moom lañu am léegi sànq ñoo ngi leen xamal ne Ousmane Sonko nekkul fële ci section de recherche bu Colobane kon dañoo jàpp ne mi ngi fii ci tribunal du palais de justice bu Dakar waaye information bi ñu am d'après ses avocats mooy Ousmane Sonko nekkul section de recherche te kenn gisu ko fii ci tribunal de Dakar leneen li mooy jëlee nañ ko fële ci section de recherche à quatre heures quarante cinq du matin heure boobu lañ ko jëlee fële di section de recherche en principe tribunal la ñu jàpp ne lañ ko war a indi ba fii ñuy wax ak yéen ay avocat wam ñu ngi def va et vient diggante section de recherche tribunal bu Dakar parce que gisuñu Ousmane Sonko xamuñu fan la Ousmane Sonko nekk lii nag moo xaw loo xamante ne jaaxal na ñëpp parce que Ousmane Sonko am nay mbokk parce que Ousmane Sonko am na ñoo xamante ne tey jii nii ci moom la ñu yaakaar ngir Sénégal jëm kanam moom Ousmane Sonko kenn xamul fu mu nekk tey jii nii. parce que depuis bi ñu ko arrêté pour arrêté pour trouble trouble à l'ordre public boobu ba tey li ñu xamoon mooy mi ngi section de recherche ñu ne ñu tey dañ koy indi fii ci tribunal euh, palais de justice bu Dakar waaye fii ñuy wax ak yéen information bi ñu am mooy kii di président Ousmane Sonko di président de Pastef les Patriotes honorable député Ousmane Sonko nekkul section de recherche te nekkul fii ci tribunal palais de justice bu Dakar nee nañu sax jëlee nañ ko section de recherche à quatre heures quarante cinq du matin fan lañ ko yóbbu fan lañ ko jëmee est-ce qu'il en sécurité lan lañ koy def jamono ji lan moo waral ñu jëlee ko fa heure boobu te indiwuñ ko fii ci tribunal ñun amuñu ci benn benn information donc la responsabilité aujourd'hui face à cette disparition man buñ ko tuddeewul sax enlèvement wu Ousmane Sonko responsabilité boobu tey jii nii état wu Sénégal moo ko amee parce que ñoom ci seeni loxo la kii di président Ousmane Sonko nekkoon depuis bërki démb ak tey fi ñuy waxee ak yéen section de recherche lañ yaakaaroon na fa la ne fa tribunal bu Dakar lañ yaakaaroon ne fi la nekk ay avocat am gisuñu ko ñu fàttali ne bu ñëwee tey war a waxtaan ak ki nga xamante ne moo di juge d'instruction ay avocat am dañoo war a toog parce que loolu la ko loi bi may mais moom ci boppam moom Ousmane Sonko ay avocat teguñu ko gët xamuñu ci lu mu ne xamuñu fu mu nekk section de recherche kon Ousmane Sonko nekkatu fa tribunal bu Dakar Ousmane Sonko newu fa ana Ousmane Sonko fan lañ ko yóbbu lu tax ñu yóbbu ko est-ce que nii la yoon wi war a demee ñun loolu amuñu ci benn information mais li wér te wóor te muy information boo xamante ne faw nit ñi xam ko mooy Ousmane Sonko nekkul section de recherche bu Colobane nekkul fii ci tribunal bu Dakar leneen li nga xamante ne am nañ ko ay ci ay information mooy kii di président Ousmane Sonko jëlee nañ ko section de recherche à quatre heures quarante cinq du matin tey jii ci fajar gi jëlee ko section de recherche à quatre heures quarante cinq du matin fii ñuy waxee ak yéen jàppoon nañ ne mi ngi tribunal mais new fi ndaxte ay avocat wam ci boppam yi nga xamante ne ñoom ñooy gérer dossier wu justice bi war a xam mbir mi nan lay demee ak fu mu jëm ñoom gisuñu kii di Ousmane Sonko kon sénégalais ñu xamee ko noonu ñi nga xamante ne ñoom ay ñoñam ak ñu ko jege gisuñu Ousmane Sonko xamuñu fan la Ousmane Sonko nekk loolu bu ko defee ñun ñëpp ñu xamandoo ko xam ne situation bii nii moo am fii ñu toll nii gisuñu Ousmane Sonko xamuñu Ousmane Sonko fu mu nekk loolu moom information loo xamante ne falee ko falee ñu xamal leen ko parce que depuis quatre heures quarante cinq moom Ousmane Sonko gisuñu ko depuis quatre heures cinq moom Ousmane Sonko gisuñu ko lii daal faw mu leer nekkul section de recherche nekkul fii di tribunal départemental bu Dakar kon bu ko defee ngeen xamee ko noonu jërë ngeen jëf